nuyu nañ leen bu baax a baax di leen euh, wax ngeen dal ak jàmm ci seen émission matin bonheur bon réveil et bienvenue dans votre émission euh, matinale bi leen di dégtal sur la première chaîne de télé privée euh, du Sénégal la 2 merci de nous suivre sur internet www.2stv.net wala ci YouTube bi ak Facebook bi partout où vous nous donc rejoignez wala sax ci 88.4 Origine FM ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal fee dalal suñu gan bi nga xam ni moom donc day yëngu ci wàllum politique mais en même temps euh, syndicaliste la ñu ràññee ko ci wàllum euh, éducation Dame Mbodj nekk secrétaire général bu CUSEMS authentique en même temps euh, nekk coalition le peuple actuellement mi ngi yeewi askan wi ñu ngi lay nuyu dam di la dalal ci plateau bi. maa ngi lay fay astu di am mbégte ñëw bokk ak waxtaan bi si matin bonheur am émission bu mu miin la. Euh, bu ma neex la également di nuyu internet yi ak ñi ñuy seetaan ci télé bi yëpp di wax comme moo daan waxee rek euh, yal na ñu yàlla defal euh, musal ñu ci fakkastalu làmmiñ lépp lu ñu fi wax ñu teg ko ci dëgg. Mm. teg ko ci intérêt yi. d'accord donc ci kanam tuuti dinañ waxtaanee ñaari ponk éducation nga xam ni jamono ji ak crise scolaire bi nga xam ni euh, grève yi daal dinay tàmbaliwaat ba tey jii sax ci xibaar euh, waa INSEPS ñoom démb ñu ngi doon xam ne ni dañ fas yéene boycotté examen brevet yi nga xam ni tey moom moo war a door doo xaw mu xam ñi ngi xool nag donc journée bi du euh, naka la mbir moomu di mujjee nañ def constat bi te di ngeen ko am ci suñu ay xibaar waaye loolu lañu ñu woon ba démb ci guddi gi donc ñu daal di wax itam ci euh, li xewoon fële ca Tivaouane ak euh, ñi nga xam ne dañ leen daal di woon rek euh, yóbbu ci yoon mu di ñaari infirmière yi féetee foofu loolu ci hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane tey jii nag lañ fas yéene janoog procureur ngir xool mujjantalu loolu nga xam ni ci lañ leen wax ni dañu ca laale muy 11 bébé yi nga xam ne dañu ñàkk seen bakkan ci boobu boobule dinañ ci gën a am lu ñu leer donc ci suñu ay yeneen jotaayu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee foofu lee sa Thiès jamono ji ni ñuy xamle rek mooy dañu fa yéene euh, banque seen ay loxo lu doonut urgence duñ ko daal du laal ci euh, hôpital yu féetee foofu lee sa Thiès euh, ci ñetti fan 72 heures yoo xam ne dañu fas yéene arrêté seen ay liggéey lépp rek ngir jàppale seen naataango yooyu nga xamante ni ñoo féetee foofu le ndax jàpp nañ ni mbir mi du mbirum ñoo xamante ni ñoom ñooy fajkat yi c'est plutôt li nga xam ni moo jëm ci mbirum installation wak lu mën provoquer lakk waaye ñoom amuñu ci euh, benn euh, responsabilité dinañ ci gën a ñaan ñëw ci nu mu gën a yaatoo ñu daal di taxaw ci euh, yéenekaay yi comme ni ñu koy defee saa su ne xool lu ñu xëyee tey lii quotidien lañ koy daal di dooree ñëw ci dàkk yi nga xamante ni dàkk nañ ko yenn ci ay liste yu waroon dem ci élection législative yi mu li nga xam ne moom di kàddu bu mujj bi nag conseil constitutionnel ñoo ko daal di yore gannaaw recours yi nga xam ni commencé nañ ko déposé lii mooy li gën a fës ci yéenekaay bi euh, xët bu njëkk euh, lii quotidien Sud Quotidien moom it dafa taxaw ci conseil constitutionnel ak euh, saisine bi nga xam ne am na ci de la part de Yewwi Askan Wi wallu Sénégal Benno Bokk Yaakaar ak Gëm Sa Bopp daal di fay daje lu leen soxla rek moo di ñu daal di leen nangul seen ay list loolu nag tax na ñëpp a ngi taxaw di xaar ana lan mooy mujjantal ba gannaaw loolu le quotidien taxaw ci investiture yi ak législative yi moom itam di wax rek ni am na euh, sale coup boo xamante ni kii di président Macky Sall daal na koy def euh, ñamu àndal lu ci mel ni PS AFP ak réew mi ñoom jamono ji dafa mel ni existé tuñu sax loolu mooy le quotidien lu mu daal di xam ne di wax itam ne jamono ji coalition yi ñu recalé seen liste ñu si bëri ñi ngi ci bataayu recours direct news daal di ne euh, li nga xam ni ñu ci bëri comprendre ñu ko mooy daal di ki nga xam ni moom mooy euh, maay xemes Ngom te daanaka euh, ci cabinet Diouf Sarr la nekkoon te ñoom dañoo euh, lajj ñu daal di koy promouvoir moom mi nga xam ni ñoo àndoon di liggéey loolu mooy taxaw seetloo bi nga xam ni euh, daal di nañ koy def Mballo Dia Thiam daal di ci àddu ci yéenekaay bi Le Soleil dafa ñëw ci taxaw seetlu moom itam ci service hospitalier yi bërëbu fajukaay yi jamono ji méttit bi nga xamante ni moo ci am ak surtout jafe-jafe liggéey bi ak faju bi loolu tax na lu toll ci ci euh, fanweeru euh, expert ñi nga xam ni seen xam-xam dafa wa màcc si wàll woowu saytu nañ ko joxe ci seen xalaat tribune quotidien ñëw ci ñàkk a bi nga xam ni euh, respecté wuñ ko dépôt list yi jamono ji nag liste yu bëree bëri ñoom jàpp nañ ni tribune jàpp na ni waruñu ko recevoir gëm sa bopp nag jamono ji moom mi ngi daal di wëyal rek bras de fer bi nga xam ni mi ngi koy amal ak góor gi Vox Populi daal di ñëw ci sax ndax recours yu bëri yooyu nga xamante ni sept sages yi nekk foofule ca conseil constitutionnel daal dinañ koy recevoir benn bokk yaakaar yeewi askan bi gëm sa bopp ak wallu ñoom ku ci nekk daal di déposer recours ngir ñu daal di lay accepter ce euh, ce liste les échos daal di taxaw ci euh, passeport diplomatique yi nga xam ni daf fi indi coow bu rëy ba ñaari député ñu daal di lañ ci te Boubacar Biaye ak Mamadou Sall jamono ji ñoom dañu bëgg rek def appel euh, seen avocat maître Antoine Meng moom ni amul benn délit boo xamante ni juge bi mën na ko retenir euh, contre ñaar ñooñu le wax itam ci insécurité ak euh, psychose bi nga xam ni moo am fële ca Tiwaawan Pël lu toll si ñetti doomu aadama ñu faat leen euh, ci lu ëppul benn weer loolu mooy li nga xam ni Les Échos daal dina koy xëy fësal ci xëtam bu njëkk gannaaw loolu ñu taxaw ci beneen euh, yéenikaay euh, lii di source a lay doon source a dafa daal di ñëw euh, ci sàccub 890 millions ci suñuy koppar boo xamante ni Farba Ngom lañ ko sàcc loolu nag ñu ko jiiñ moom moo di garde corps boo xamante ni en même temps chauffeur am la moom moomu di Farba Ngom moom moo daal di rek sàcc xaalis bu toll noonu avo yi PV yi loolu la joxe gannaaw enquête bi nga xam ni tijji nañ ko source a lool la daal di xëy fësal ci ci xëtam bu njëkk le mandat ñëw ci mbirum scandale ak jafe-jafe dund gi jamono ji ak it coow yi nga xamante ni moo am ci réew mi mbirum agression itam ak affrontement yi nga xam ni moo am ci langue politique bi bu ñu xoolee daal jamono ji Sénégal métti na métti goo xamante ni li ca dajee moom moo bëri le mandat lool la daal di def ab taxaw seetlu mi ngi ci biir yennkaay bi Dakar Times dafa ñëw ci lu doy waar mooy mbirum tuxum cigarette fii ci biir réew mi lu toll si juróom-ñetti aadama ñoom la daal di ñoom lay fàtt bu ñu xoolee ci àdduna bi yëpp du ci Sénégal képp waaye bu ñu xoolee daal rapport bi nga xamante ni organisation mondial de la santé joxe na ko moo di chiffre yooyu le l'observateur ñëw ci euh, fukk ak benn euh, bébé yooyu nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci hôpital bu ci waawan lu toll si ñett euh, ci yooyu les bébé ñoom bañ leen di sauver ci ay lakk lañ leen sauver fekk lakk bi metti lool ci lañ leen daal di génne nay ay révélation yoo xamante ni euh, sage femme ak aide infirmière bi infirmière bi daal nañ koy def le vrai journal ñëw ci euh, préfet ak euh, direction générale des élections yi nga xamante ni bi mbir yi amee mu di élection yi weesu ak yi nga xam ne si lañu jëm gis nañ ni lii di waa conseil constitutionnel ak yenn ci instance yi dañ leen daal di rek débouté tax ñu ne nañu def ndànk ci administration bi nga xam ni politique bi mu ngi koy rax loolu mooy le vrai journal bu mu def euh, tey ci yéenekaay bi loolu moo nekkoon euh, li ci gënoon fës euh, daam bu nekkee am na commentaire boo ciy def laataa ñu soobu ci waxtaan bi. waaw jërëjëf Astou actualité bi moom riche na riche na ci malheureusement loo xam ne rafetul ci deru Sénégal parce que yaakaar naa ne yeneen réew Afrique yi bu ñëwee biir sunu presse bi ak liy xew Sénégal dinañ ni nag wax dëgg yàlla Sénégal mu ngi dellu ginnaaw. parce que ñun Afrique dañu bokkoon ci réew yu raw sur le plan de la gouvernance euh, wax dëgg yàlla Senghor loo ko mën a waxal bàyyil nañu fi au moins benn état naam tubaab yee ko fi tegoon euh, Abdou Diouf bi mu ñëwee consolider na l' état de droit euh, naam moom it def na fi ay quelques njombe waaye nag téewoon na sunu état ba yu bëri yi ñuy dégg tey kenn daaw ko fi dégg bilan nag moo néewoon waaye tey jii bu demee ba as suñu naan ci kër yi. ci ñu bokk ci mouvance présidentielle bi ñu ngi leen di sàcc lu jege milliard euh, ñu gis euh, loolu sénégalais yi mel ni ñu koy banaliser parce que man je trouve que c'est un scandale parce que dans d'autres pays jàpp naa ne su information bu mel nii am na fa te état bi jëlu ci benn matuwaay nga nekk géwlu président bi kese nga mën a jël euh, alal ju toll noonu ba sa jege ñaale sa chauffeur wala ku la jege Euh, war a jël sa 890 millions muy presque milliard te indiwul benn problème ci état bi kenn woowu la amul benn problème te c'est pas la première fois toujours ñu jël ay montants yu élevé ñu gis ay fonctionnaires de l'État euh, nekk ci biir ministère des finances euh, il y a pas longtemps gis nañ le directeur général du budget ñu sàcc 50 millions bureau Moustapha Ba c'est-à-dire ça me choqué quoi c'est-à-dire c'est ça qui est qui est regrettable c'est-à-dire mun ñu nekk suñu réew di jël suñuy deniers publics comme ça euh, ci réew moo xam nit ñi bu ñu feebaree du mu faju njàng mi jël ci la ñu war a dugg léegi jafe-jafe yi bëri na secteur boo mën a jël su les secteurs clés réew mi demul ñu jël suñu alal ju toll noonu ñu am ay fonctionnaires yoo xam c'est des milliards.